dama doon euh, ñëw ànd ak fii ak euh, le ministre Oumar bi nga xam ne daf am tey jii nii benn benn manifestation mu nekk occasion mu jaar ci réseau de femmes pour le développement de Thiès mu ñëw xool jigéen ñi li nga xam ne boobu ba tey ñu ngi ciy yëngu après plusieurs séances de formation yi nga xam ne def nañ ko fii biir Thiès tey jii nii jigéen ñu commencé di mettre en pratique di liggéey li nga xam ne moom lañ jàng ci xam-xam lu jëm ci wàllu pâtisserie ci wàllu defar nu ñu defaree ak eau de javel mais aussi ak transformation céréale locale loolu nag nekk vraiment ñëw bu am solo parce que euh, ay jigéen bu ñuy dajaloo ñàkk doole ñàkk mën-mën di di jubboole seen dërëm ak seen ñaar dërëm di dajale teewaayu kilifa gu mel ni ministre Oumar yoom da leen di vraiment da leen di da leen di encouragé ci li ñuy def parce que bu fekkee da ngay liggéey kilifa ñëw vraiment ñëw jàdd ñëw xool ci li ngay def loolu mooy kii li ngay def yëg na ko li ngay def saf na ko et nekk na mbir bu am solo ci askan di wax nag ne lii vraiment euh, euh, euh, liggéey la ba nga xam ne dañoo nekk ci diggu yoon parce que li ñu bëgg dëgg moom mooy dem ba jigéen ñi vraiment nekk ci ci production bu am solo ba nga xam ne tey jii nii dañu koy mën a commercialiser ngir rentabilité financière yi mun a delluwaat ci ñoom ak si seen biir njaboot ndax boo gisee li waral lii yëpp moom mooy vraiment suqali suqali suqali koom-koom suqali koom-koom jigéen ñi mënal seen bopp dootuñu tàllal kenn loxo dootuñu dem banque dootuñu soxla kenn ñoom ci seen biir ñu am seen association yor seen kees mënal seen bopp dootuñu soxla ma sàmm dootuñu ma soxla ma demba loolu moo waral lii boo ko defee day nekk lu am solo la nga xam ne tey jii nii bu ci kilifa teewee ñëw vraiment war nañu ne li ngeen di def kat yëg naa ko saf na ma te vraiment yéen ci yoon bu baax dañ ciy kontaan loolu di ko remercier encore une fois de plus le ministre Oumar Youm yaa wax na la nga xam ne ñun laajuñu ko sax li mu wax moom mooy dina leen jël audience yaakaar naa kilifa bu ñëwee xool li ngay liggéey ba mu ne vraiment dinaa leen jël audience loolu mooy kon cela veut dire li ngeen di def am na solo lool te incha allah wax na tamit ne bu leen jëlee audience dina leen jàppale loolu dafay nekk la nga xam ne jigéen ñi itam dañu koy soxla jàppale boobu dina bu bu ñëwee dina nekk la nga xam ne luy gën a yokk seen liggéey la ñu ko ci remercier encore une fois de plus. ñëw tey Thiès xam ne am nañ fi benn ndaje bu am solo. mu war a commencé ma profité si ñëw parce que dañ ma wax jigéen ñi li ñuy liggéey fii mu nekk lu am solo ñu ñëw xool le réseau des femmes yi nga xam ne ñu ngi ci transformation de produit. Euh, di ko commercialiser mu nek lu am solo mu ñewon doon ko xol pour euh, jaajeufal len féliciter len encourager len dig len dajé nak pour ñu tok waxtaan xol inshallah allah ñun tamit suñu wal, nan lañ ci pas parce que ñun ñëp ñoo bok suñu région Thiès bok suñu dëkk ñi koy liggéey te xaaruñu état nek euh, def preuve de de d'exemplarité citoyenne di daan sen doole di ci duggal sen xam-xam duggal sen cawarte parce que dëkk ñun ñi ko dëkk ñoo koy liggéey donc lii buñu ko xép lu am solo la parce que ni lañuy commencé euh di di wone le bon exemple donc ñu ngi leen di féliciter ah jigéenu Sénégal yag nañu am gàcce ngalama mais rawati na nak jigéenu kadior yi nga xamné ne wax dëgg yàlla li gis fi mom dal na suma xel bu soobee yalla mom nañu xamné am nañ bés ni nga tay am nañ ambassadeur d'abord ci gouvernement bi pour euh, xam nga amna lu bari lu gouvernement bi di développer comme ay programme du DER euh, ci économie euh, sociale et solidaire aussi gis ngeen li ci président bëgg a def euh, waaye ñun aussi en tant que rek citoyen en tant que seen frère euh, am na loo xam ne jàpp nañ ko pour jàppale leen ko incha allah te bu leen jëlee audience dinañ leen ko wax pour jox leen ko bu soobee yàlla.